شهر وفي سفر أماني على ماني jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah wax naa la ñu ngi fii ci kër Serigne bu Mbacké fekk fi xalifa bu teet bi Serigne Ahmadou Mbacké waaye itam fekk fi cheikham bi nga xam ne macha allah tey wane na tey bésum mbégte la ndax tey la ñuy sant la Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bésam bu bi nga xam ne moom la doon wax xarajtu yow ma sabti saamina achara li xidmatil muxtaar fii chahri safar cheikh bi ginnaaw bi ñu la nuyoo ziar la ñu bëgg laa laaj lan moo waral tey nga indi bendeel yu am solo yi gannaaw ba nga xamee na jox nañ la kilifteef gu am solo ba tax na am na ñeneen ñoo xam ne itam dañoo jokk ci yow ngir nga jokkale ñaanal leen ci sëriñ bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sëriñ Touba soxna si ñu ngi leen di nuy di leen ziare di nuyu télé bi di nuyu seen kilifa. ah bis bi moom bis la boo xam ne bisub sëriñ Touba la ah, sëriñ bi moom lam ci sàkk woon moo di hmm, bu bis bi jotee nañ ko waajal bu baax ay ginaar ba ci gëléem te berndeel ko gan yi te sant la ko yàlla ci bisam bi ndax ku ne xam na ne bis bii bis la boo xam ne sëñ Tuubaa wax nañ ni bëri na lu bari loo xam ne suñu borom fàggul na ko ci bis bi la ko amee kon moo waral te bis bii wax nañ ni xeetu bernde lu ci waaye def lu ne sëriñ bi moo koy fayal boppam ñu fas yéene ànd ak taalibe ñëw ci nga xam ne ki nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Souhaïbou ñu fas yéene ko defal bernde yi ñu santale ko maamam ju tedd ja sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ay ati at ñu koy def waaye gis nañ ni saa yi ñu ko defee rek bu at ba del siwaatee rek maanaam sëriñ bi defal ñu lu kawe suñu njort ba ñun def ñuy yéem loolee daal ci lañ fas yéene nekk nekk ceeg taalibe yi ñetti fan lañ koy màggal nag bu ñu nee suba la màggal gi ak bisub màggal ak bu ñu màggalee ba ci ëllëg sa sëriñ bi nag dimbali nañu lépp loo xam ne daal xeetu luy dund la dimbili nañu ba fàggu nañ ko ba di ko defal ci bisam bi waaw ah, tey moom bis la boo xam ni ah mel na ni daal. xëy na am na loo xam di ngeen ci teg seen bët ci xéewal gi. mu mel ni ki gis nañu xéewal yi bari lool moom benn li ci ñaata bool la toll ndax mu mel ni ki mbooloo mi takku nañ lool. mel na ni démb defoon nañu juróom fukk juróom fukk ak euh, juróom waaye tey mel na ni def nañu sunu yéene sunu mbébét mooy jëy sunu lañu ñu bëggoon def trois cent treize waaye mel na ni lépp a ngi fi waaye bool yi yanu yi. mbooloo mi moo xaw a manqué tuuti waaye mel na ni def nañu téeméer ak xeetu lu toll ci juróom-ñett fukk ci li ñu am yaakaar ci lim gi la ca des mënuñu koo indi te dañ koy def suba ak ngoon muy añ ak reer ñetti fan yi xeetu yeneen ya cay topp moom jébbale nañ ko démb muy nag yi ak gëléem yi ak mm, boisson yeeg ndox yeeg fruits yi loolu moom démb oto yi jiit la nañu indi nañ leen dàq nañ nag yeeg gëléem yeeg yëpp ba mu ñëw jaa ngeen jëf jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon gis ngeen xewal sëriñ Touba yi kenn mun koo takk fan la yem kenn xamul fa tàmbalee fi mu tàmbalee mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul liggéey bu tedd ba ba kenn ku nekk war caa barkeelu waaye kenn xamul fan la jëm ndax gis ngeen démb lim indi ci bendal tey lim indi avant màggal gi itam li indi te nee na pareegul kon mu mel ni ki dañ leen di jox rek euh, di daje ba ci kanam incha allah. borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Sonhibou Serigne bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare di yeesalaat sunu njébbal ak sunu jëf ci sa jëmm ji ak sa njaboot di la seereel ni lii ñu def nii yow yaa ñu ko mën loo yaa ñu ko def loo yaa nekk sunu xol yi yaa nekk sunu poos yi yaa nekk sunu lépp yaay sunu lépp sëriñ Ahmadou Mbacke Sonhibou ku ne xam na ne cheikh bi fa mu nekkoon wala na mu meloon ku ne xam na ne fii mu egg si tey kon li nga ma waxoon rek laay faral di wax sëriñ bi man dootuma wax damay jëf loolu nga waxoon sëñ xaari ne ko cheikh bi dootul wax day jëf te ginnaaw da maa bëgg a dimbili ngir may jëf jëf joo xam ni nangul nga ma ko parce que xam naa ne yaay sëñ Touba sëriñ maa ngi sàkku nga ñaanal sama mbokk yi ñëpp ñëw nañu ñu demoon kër sëñ Bass Abdou Khadre ñu wëlbatiku ñëw foofa ne ko ñu ngi dem kër sëñ Chouaïbou ndax Cheikh Ibrahima Ndoye day sunu deret di suñu mbokk ñoom ñëpp teew nañ fi taalibe yi teew nañ fi sama soxna yi teew nañu samay kilifa teew nañu li teew gi moo di ku ne xam na daaw fa ñu toll woon ak ren fii ñu yegg si tey ndax mel na ni daaw egsiwuñu woon fii waaye sëriñ bi li nga ñu bàddil ci xéewal ci ren jii toog naa ba mu yàgg ma ne est-ce que man su ma dencee ñaar téeméer ndax sëñ Tuubaa du ma topp loolu ndax doo ma topp loolu ndax tiit ndax ñaar téeméeri yi moom ma ko yow yaa ko moom sëriñ bi ku ne xam ne ni li ma defal yayowu ma ko waaye bëgg maa dimbali di dimbali jaam yi moo tax nga def ma ni ma def sama askan yëpp wëlbatiku nañu xam na ni yaa nekk sama jëmm ji te la nga ma waxoon dama ciy jaaraat sëriñ bi yaa ma wax ni lu la sa fit may na nga ko def waaye fekk na defar nga sama cër yëpp ba nga xam ni la nga bëgg rek laay def waaye maa ngi lay seereel ni sant nañ la sant goo xam ni mënuñoo xam sax fa mu yam ndax mënuma sax wax Ahmadou ku ne xam ne ni yaa ma moom man yaa ma moom man duma sa taalibe dang dang maa moom nit ki nag li mu moom li mu moom lu ko neex la cay def man toppee ma la milliard ragaluma safara àjjana taxumaa jóg dang maa moom nga seey sama jëmm ji wax naa ko sama askan wax naa ko ndey ji ma jur wax naa ko samay soxna man bëgguma dara benn bëgg laa amoon bëgg naa la jeex keneen ku ma wax bëgg naa la damay wax lu ma ne sëñ Xaadim maa ngi lay seereel ni damaa xamul lan laay wax am na ci loo xam ni boo dee as gor ñu defal la ko yow la nga war a def mooy jël sa njaboot jël sa askan yeew leen ci ab buum takk leen diri leen jox leen Serigne Soy te loolu ci laa fas yéene ne Serigne bi am naa fit ragaluma waxuma duma tooñ waaye danaa moyu waaye Serigne bi ko am personnalité la kenn du ñëw ndakaaru fekk ma ci loo may yeddee ndax kër Serigne bu laa bokk toujours ma wax ko te lëng ma digal ci laa sax te ci laay nekk kenn amul kenn ci ndakaaru koo xam ne danga nga wax Cheikh Ibrahima Ndoye nga ne accam loola nag du sama jëmm ji yaa ma togg yaa ma defaraat ba ku ma gis xemem moo tey bu ma ñaanee si sa barke di faj aajooy jàmm man utiwuma mbooloo mi mbooloo mi ñoo dawut si ma waaye utiwuma leen te bu nee ma jaaraat ci wax ji di ko waxaat sëriñ baa ngi toog yéen a ngi toog maa ngi wax mi ngi dégg man fajuma aajooy kenn aw ma daray baatin waaye ci darajey sëñ Cheikh Seye ci laay dimbali jaam ndax moom xajut sama jëmm ji moo ma dimbilee loola maa ngi leen koy seeral ngeen xam ko te xam ni te xam ni ki ngeen àndal daa jar a àndal Cheikh Ibrahima Ndoye ku ànd ak moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke son bu nga ànd moom te ku ànd ak Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke son bu Serigne son bu nga àndal Serigne Abdoulaye nga àndal Serigne Touba nga àndal lu ma waay jox nag ma jox ko ko lu ma waay jox ma jox ko ko te lu ma xam dinaa ko wax te lu ma dégg wax ko ko kon lu ma waay di wax wala lu ma waay di jox lu ne na nekk loo xam ne lu leer lay doon tey di ma jox ku ne nag ma jox loo xam ne lu leer lay doon ndax man bu ma xëyee damay dem daani sama doole ñëw jox Cheikh Ahmadou Mbacke du yi dëgg la maa ngi sàkku wala maa ngi sàkkuwaat nga jéggal ñu ndax sa njaboot gii rek boo leen yónni woon dafa doy man man sëriñ bi bu fekkee ci waxin ci saay dama la dama lay ñeewantal ndax toog gi ngay toog fii ak sama jëmm ji nga xam ni man doonuma dara sëriñ bi ngay toog fii ngir ngir lan ngir ngir ngir seere sama jëf ndax yaa ma waxoon sa jëf surtout laa koy seere te ku ne sa njaboot doy na sëkk kenn rek boo yónnoo bàyyi am sa mii rek wala nga yónni sëñ xaadim mi nga xam ne mooy borom màggal gi rek wala nga yónni bàyyi laat mii donc dafa doy sëkk mais wala ñeneen ku ci gën a ndaw ci gone yi donc mu toog xool ndab yi rek Ahmadou yow yaa ko xool kon li ma dofal man bu ma dee as gor bu ma dee as gor danaa jàpp sa njaboot bu ma dee as gor danaa jàpp taalib yi ngir jëmmi Serigne Touba maa ngi lay seeral ni maa ngi sant soxna maam xëri ndax yaa ma booleeg moom bu yàggul yaa ngi koy feddali ci màggal seen coin soxna maam xëri laala booleel te ba ma booleek moom du tey ca beleel la woon maa ngi lay seeral ni lu baax lu lu mu xam dana ma ko ci diggal lu mu xam lu mu xam ci lu baax dina ma ko defal te dina ma ko digal te it du yamul ci moom it mboolem ko corniche ña fa nekk ñëpp ku ma ci dajeel yaa ngi wax cheikh bi sëriñ bi na la def milliardaire mboolem ku nekk corniche ku ci ne te ña nga xam ni yaa leen yaa leen boo leen jaboote muy seen njabootu bopp yëpp sëñ bi bu ñu sañoon tey ma ami parce que xam ne su ma amee milliard yaa ko moom man nag milliard milliard dañ koy wax waaye man milliard yow yow yaay milliard man li ma defal moo dàq milliard mooy pajum aajo bu màggal jege see du ma dajale ci dara jëy seen Cheikh Seye ci la liggéey bi di ñëw ma koy ma koy dimbalee jaam te la nga waxoon nit du ma ci jóg yaa ma waxoon ne ma jaami yàlla yi la am nga bokk ak ñoom te am nga bokk ak ñoom ngir jëmi Serigne Touba te loo jëf na ko fàtte ca loola ca laa fas yéene nekk asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Sohibou Serigne Cheikh Amadou Mbacke Sonhibou bu yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak mbooleem jabootam ci barkib Serigne Sonhibou bu ci barkib màggal gi ah sëriñ bi man de bu ma doon wax ni damay mer ci màggal gi xam nga lu may mera a ah? màggalu sa sëñ Touba gii di sa màggal damay wax ni sëñ Touba lu tax màggal gi def ko at weer wu ne di ñu ko yóbbul at baat man Serigne bi su màggal gi dee jib si damay am xool bu naqari dara jeey Serigne Sonhibou sëñ bi man bëgguma màggal jeex parce que damaa xam ne màggal ci may dimbalee sëñ bi sëñ bi gi day mi ngi dem déwén rek lay ñëwaat sëñ bi déwén la màggal di ñëwaat ay ni weeru nekk màggal sëñ bi màggal ci la ñuy dimbali jaay bi bu xamoon ci sa màggal gi neex maari jaalo loxo ma نيل ونال وقت العناع رد سامي على الجميع يوم الخصوه يوم نداع عرب بخير أربابي ديري لباخي ميري أو اقتداه كل سجاه لو تباه لو تباه وقت الرفاه سيد خادم نينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nee na mbooloo mi fi teew mi ngi leen di nuyu si turu Cheikh Ahmadou Mbacké Sonhibou di jël nuyoo bi ak cant gi di ko teg ci loxo loxob Cheikh Ibrahima Ndoye muy sunu jëwrin ci kër Serigne Touba nee na mi ngi wax Cheikh bi ni ko si turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ak njaboot gépp nee na xolam sedd na guy la waxoon daaw rek moom lay waxaat nee na yaakaaram dolli waat na si yow nee léegi bi nga xam ne yaa ngi doog yegg si bi nga organiser sa mbooloo mi eh, sëñ Ahmadou Mbacke Sow mi dafa da ko wax ni jot lil ma samay kàddu nga xamal mbooloo mi ni Cheikh Ibrahima Ndoye dey ku ma gërëm lool la ngërëm loo xam ni Serigne Touba Serigne Soyibu rek la koy soreel waaye nag ne leen wóor ni ku ko jàpp de moom nga jàpp lu ko nit def moom nga ko def te lii muy joxe li muy joxe si biir moo ëpp fuuf li nga gis si biti ne kon nag seex bi loolu am solo lool la nee na bis bu màgg bii tedde nii ak barab bi ñu toog Serigne Touba mi toog seede la loolu di sa jëriñ sa sëriñ Tuubaa ne yoru sa ëllëg sa tey jii wane na ko ne kon nag na nga rafet njort bu baax nee na Cheikh Abdoulaye Lahad Mbacke daal wax naan murit bu ne war ngaa xintewoo sa tey gàccal sa ëllëg ne ne lii mooy li am nee na ndax ba nga dara ñëw si màggal ga ba léegi waxtu wu ne loo jëfoon ren da nga koy xeeb yaakaar ne déwén jot ba nga def lu ko ëpp. te nee na loolu rek moom la gis yow ne nit kat du seede lu mu xamul nee na màggal gi nee màggali weer si yëpp gu ci nekk bu yegsee la nga joxe ci àddina def ko ci bernde mooy faw ko fuuf la nga joxe woon daaw nee na kon ne yokkute nga am nee na yokku googu la sëriñ bëgg ci yow a na rafet na ci njort bu baax ndax taalibe kat amoo lu dul sab sëriñ te gërëm na la wax na ko ci kaw wax ko ci suuf junj ko misaal ko ba kenn na nattabtalu ko nee na kon nag xéewal yi nga fi indi nee na nga xam ne bi màggal commencé ba léegi dëkkul benn yoon nee lépp lu ci am te te da doon ay tuyaaba yàlla na la ko Sëriñ Tuubaa fulal yaag sa njaboot yaag say mbokk nee li ki ci gën a neex nag nee na boo doon ñëw ànd ak say taalibe ak say soxna wala say doom ne du ko doy nee li ko gën a neex bu geesoo gis sa mbokk liwi sa gannaaw day kontaan lool na ndax wóor na ko ni lébu ñu bëggante lanu ñu fonk seen deret lanu ne fu ci kenn nekk ñëpp daan àndandoo jàpp ko nee na kon ne yéen yéen ñi ay mbokkam sëñ bi sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax ndax seetlu na leen bu baax nee waxtu wi seex bi ñëw bu geesoo gisee ci gannaawam ne loolu lu am solo la ne yéen ñi nga xam ni seex bi ngeen àndal nee na moom it nee na wan ni ku fonk seex bi la nee dana feeñ seen jëmb bu baax ba ngeen xam ko ne taalibe yi ànd ak moom li mu la waxoon démb rek nan góorgóorlu bu baax ndax da koo xam ni la nga koy jox danaa la sa saayir moo ngi nii kenn yóbbu ko sëñ Tuubaa nee du ko joxe di nëbbatu du làqatu nee na kooku nekk ci lu wér te fa mu xam ko nee loolu tax mu moo tax mu ñeme ko nee kon seex bi na nga góorgóorlu te dafa njort bu baax nee li ci gën a jéemawaat daan ga joxe addiye nee na mosu ñu recevoir fii fii nag bu njëkkoon a sos ñu xalaatoon fële nee nga daal sañ am sa daal di xalaatat fii nee na fii daa am lu bari dafa am lool ndax sëriñ sooyibu màggal gu mag gi fii laan génn ñu koy siyaaree fii ne kon boo commencé kees gële ñu ñëw ba ci kees gee ñëwaat ci kees gi ne mujj ñu ñëwaat fii tey di bisu màggal gi ne war ngaa dafa jot baax sëriñ bi toog di sëriñ Tuubaa di sëriñ sooy bu ne saxal dal bu baax te nga jot te nga dafa jot bu baax nee ñi gërëm bu baax it sa njaboot nga àndal soxna ay sa nee sa bopp ba doon soxna su baax jigéen ju jàmbaare lool sëñ bi gërëm na ko bu baax mën a muñ wala fi dañuy wax naan ku xaarul dara dara du la fa fekk ku yàkkamteet bu xéwal di ñëw ka mënoon a xaar jël ko nee na kon soxna Aysatu sëñ bi mi ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal yàlla guddal soo fan wéeral say cër liggéey bi seex ba sëmb nga ko njaboot gi gépp ba fa nga ko bëgg a nga jëmee ko fa ne jigéen ju gore nga jigéen ju baax nga ne li muy joxe fa mu ko commencé ci benn ba fii mu toll yéen a ko ànd ne kon nag góor bu baax te dafa njort bu baax te xam ne jigéen ju baax nag mooy toppatoo borom këram mooy yaatal te nee na boo yaatul woon lii lépp du mën a am barke Sëñ Tuubaa nee na sant bu baax it soxna Awa Ndooy ma ne mi nga xam ne sii day magu seex bi di léppam ñu bokk ndey ak baay mu jóge Australie ànd ak borom këram sëñ Omar Ndiaye nee na moom ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla may ko xéewal ak fan wu gudd te xam ne fa mu jóge soro na lool ne lu mu néew néew nee ne biyoo bi dana mat million ak nangam ne kon nag ne bu ne ko koy samak Cheikh Bey Sarak war noo xam ne yéen day ñu baax ngeen lool askan bu baax ngeen ne kon Cheikh bi sëñ bi xolam seet na lool ne li nga terale gan yi terale sëñ Tuubaa ganam yii nee ndax bés bi sëñ bi daf di woon li commencé ci ginaar ba ci gëléem lu ci waay mën na ko def eh, nee na commencé ginaar ñëw ci nag boole boole yëpp li sëñ bi waxoon rek boole nga di ko sëñ bi addiye nee na kon sëriñ bi xolam sedd lool nee na gàtt nga màggal gi gunge nga màggal gi nee ba ci màggal gi jeex sax lii su xéwal yi da nga koy def ab ko sëñ bi addiye maa koy nee na kon seex bi góorgóorlu te rafet njort te xam ne sëriñ bii xam na fa mu jëm xam na fa mu la jëmale jërë ngeen jëf salaatu lasi fi kulli sahrin wa fi safar amani ala mani